ouvrage yi qualité bi mu waroon nekk nekk ko et puis il y a sous-traitance c'est vrai taw na dégâts yi am na nit ñàkk na bakkanam on ne pas avoir pire que ça mais est-ce tey bu ñu gëstu woon ci mbir yi y a pas des scandales li nga xam ne moom la ñu yaakaar parce que marché bu ñuy sous-traité sous-traité sous-traité ba député yi dem ba rendre compte que il y a trop de sous-traitance il problème oui xam nga dañuy faral di wax fii souvent ne ndox mi ak béton bi mhm. Euh, ñaari lekkukaay. waa ji nee na ma plan Orsec rek jënd jënd ay camion waaw ñaari lekkukaay yu gën a. yu gën a yu gën a saxan ci ci ci ci ci état bi sa soo gisee ñiy wax ay travaux et infrastructures de grande envergure. Mhm. wala inondation rek. lañ ciy dégager comme milliard na la leer ni que ça plus profité à une petite catégorie d'hommes d'affaires ou d'hommes politiques. mais les vrais bénéficiaires mooy les population jamais duñ ko gis pour revenir sur le cas de la corniche mm-hmm. xam man corniche kañ laa commencé tikkee mm-hmm. y une note de l'ambassade des États-Unis bi ñuy paree corniche bi ñu génnee benn note mm-hmm. interdire ñoom seen oto yi bu ñu jaar ci tunnel yax pax yooyu tunnel ah. nga dañ dañ interdire seen oto ba tey jii amul oto ambassade États-Unis bu fay jaar dañ koy wër dañ koy wër loolu bi mu amee c'est-à-dire c'était assez évocateur de la qualité euh, de, de, des infrastructures mooy benn ñaar mm-hmm. quand on dit dame a perdu la vie la vie à cent mètres mmh. de l'océan Atlantique mm-hmm. cent mètres te ñu ne la ndox a ko rey te ñu ne ci biir ndox c'est-à-dire cent mètres fi mu dee mm-hmm. fi ko ndox mi jële ak géej gi cent mètres mètres boobu nañu daggate daggate domaine public maritime bi jaay ko ay gars yi nga xam ne daanaka ils sont dans la galaxie politique ou dans la galaxie des affaires ñooñu nañ daggate le domaine public maritime jox leen ko. Mhm. ba nga xam ne aujourd'hui les ouvrages yi nga xam ne ñoo waroon permettre ñuy évacuer les eaux muy dem biir géej. Mhm. amatul parce que foofu yëpp le domaine public maritime c'est devenu domaine privé maritime. Mhm. donc kenn du nangu ñuy def ay canalisations. di ko jaarale sa kër loolu mooy mooy mooy problème mu Sénégal. en fait on est dans la gestion conjoncturelle depuis su Wade les gens dafa mel ni que ils ont compris que avec ces inondations là hmm. tant que ñi ngi jéem a def du structurel li nga xam ne c'est dans la durée ça peut permettre aux Sénégalais de s'en sortir ça peut permettre aux Sénégalais d'avoir un cadre de vie idéal hmm. pour ñoom c'est une perte de temps lii nga xam ne moo leen di arrangé mhm. mooy le conjoncturel c'est-à-dire mooy li ma waxoon fii ci benn émission mooy les dernières inondations mhm. mooy saa su nekk ñu mun a décréter plan Orsec saa su nekk ñu mun a jël euh, seeni homme d'affaires préféré mhm. euh, jox leen ñu loué leen ay motopompes loué ay camions hydrocureurs et consorts ça c'est des situation yi nga xam ne Moustapha jamais on ne s'en sortira il a raison de dire euh, l'honorable député a raison de dire mm -hmm. euh, l'exemple du Cameroun effectivement bizarrement bizarrement Yaoundé ndox du fa taar bizarrement nga nga jógee foofu tu vas à Libreville c'est la même chose ndox du fa taar au Gabon waaw mhm. et c'est des pays yi nga xam ne mais dañuy taw day taw yi nga xam ne taw taw bi mhm. non taw bi sax du taw bi absolument tu vois mm -hmm. taw yi muy taw foofu donc tu te dis que ces gens-là sont en avance par rapport à nous. ce qui veut dire que contrairement à l'idée reçue que ni bon Dakar dafa xat Dakar dafa nangam ak nangam si on avait fait les travaux qu'il qu'il qu'il fallait Dakar mën nañ fi dëkk te du taa. Moussa j'ai j'ai j'ai rappelé ici l'année dernière ma ne. moi hmm. eu la chance il y a quelques années euh, de visiter le sous-sol de du Dakar de Dakar Plateau. Hmm. c'est des autoroutes la fi tubaab bi bàyyi. gis nga boo ñëwee place de l'indépendance mhm. où Khalifa Sall avait le fameux projet de de parking souterrain non Khalifa bi muy wax loolu les gens n'avaient pas compris c'est-à-dire le parking existe déjà gis nga foofu ci suuf mhm. li fa nekk ëpp na ñaari terrain football place de l'indépendance boobu mhm. li fa nekk ci espace mu am ay bayaal ya nga xam ne nag bayaal yi boo jëlee avenue Mohamed Hassan euh, II ni mu day noonu la tali bi day ba dugg biir port loolu moo tax plateau du Mm-hmm. bi ñuy def travaux yi nag bi ñuy def travaux autoroute bi mm-hmm. foofu la problème yi commencé mooy que au niveau de Malick Sy mm-hmm. je ne sais pas si vous vous eu un grave problème mooy bi ñu tojee canalisation bi au niveau de Malick Sy xaw ma yaa ngeen fàttaliku bii travaux yi ñuy def travaux autoroute à péage bi bi ñu tojee foofu affaire bi indi ngandum maam problème à l'époque la SONES c'était plein et avait déjà d'ailleurs averti ni que buñ ko réparé wul bu ñu ko réparé wul dans les mêmes formats ak ni mu menoon mhm. mooy que Dakar risque d'être la proie des inondations d'accord voilà alors Pape Makhtar avant ñuy ñëw ci ci ci maam Birame euh, li laajoon Alioune Souaré sànq laa la laa bëgg laaj. Mhm. mooy euh, Dakar yàgg naa inondé ah. Mhm. Euh, c' est pas sous le de Macky Sall mais travaux yi nekk Dakar quand même BRT bii ñu wax nga xam ne Issa moo ko doon comme comme ay paxi jana xaw paxi kañe est ce que <clears throat> y' avait pas une façon plus intelligente de faire ces travaux par étape peut être et non bañ a gas Dakar gépp tey bu tawee ñi ñëw fajir yëpp xam nañ ne. dangay ngay wër a wër a wër ba sonn. Mhm. et te j'imagine que ñiy dem ci yeneen quartier également c'est la même chose est-ce que dëkk bu mel ne Dakar bu tawee mu taa. su waa ji wax na ko su su solees bëttee benn kiiw sax mu taa. Mhm. dëkk yi duñ duñ def est-ce que c'est intelligent de faire ces travaux ak ni ko defee même si je sais que mais mais mais xam nga li ngay posé nii du question question mhm. rhétorique la parce que yow déjà xam nga réponse bi. non xaw ma ko non non évidemment ay sénégalais aussi yu koy yu koy yu koy seetaan xam nañu xam nañu réponse bi parce que tey xam nga euh, bu ñuy bu bu demee ba mhm. euh, dernière fois ba muy njëkk taw. dama nekkoon euh, ci terrain bi. Mhm. gis taximan ak seen oto yi ci kaw benn rond-point. mais ñoom ñëpp dans à l'unanimité lu ñuy wax mooy travaux BRT ñooy teg lii. Mhm. sa à dire même bi nga xamante ni sax day liggéey ci taali bi xam na ni que ni lii. waruñu ko woon defee nii waroon nañu ko defee par étape. Mhm. mais malheureusement gis nga dafa am loo xamante ni Moustapha man mënuma gëm nii que ay affaires yoo xamante ni la ay mbirum yàlla la yu kenn xamul. dëgg la yàlla mooy wàcce taw mhm. mais dafa am loo xamante ni science la te yàlla moom moo ñu jox xam-xam pour ñu koy jëfandikoo dañu mhm. bàyyi seen caaxaan président Macky Sall kenn wax ko mu arrêté taw bi ak ay loxoom dañ ko ni mhm. bu ANACIM te liggéey mais ni ko waaw ni ko année bii di nga am nangami taw na jël ba pare da ciy defaale ay recommandation na jël en compte recommandation yooyu ANACIM def bu ñuy def ay na nañu xam ne dafa am ay conséquences parce que dafa ay zones yoo xamante ni zone yu wàcc la gis nga buntu RTS ala kulli an dafay dafay inondé bu tawee bu 30 minutes après parce que foofu la ndox yi di wàcc di daje. oui mais lan moo tere ñoom euh, demee aussi Masalikul Jinaan en face. parce que zone yooyu ay genre bas la. Mhm. ñoom xam nañu loolu mais lan moo tere ñoom ñiy jël ay ay mesures yoo xamante ne mesure de prévention la. comme ni ko ANACIM di waxee dalay naan sax ba ni la si zone yi. Mhm. dama nga teg fa moto pompe parce que bu tawee boo moytu na am ay jafe-jafe. mais malheureusement lan moo tax seen BRT bi ñoom ñu bëggoon ko accélérer parce que dañu bëggoon présenter benn bilan hmm. loolu kese moo leen intéressé woon du jafe-jafe askan bi tey nag président Macky Sall du ay euh, lu mu tudd plan ORSEC nañ doon xaar ci moom man en li ma doon xaar ci moom hmm. parce que ba muy falu en dafa am inondation 156 mètres euh, mètres cubes mu ñëw ni dafay supprimer li nga xamante ni mooy Sénat hmm. indi fi sénateur yi fi nekkoon yëpp mu jëlee leen fi ni way parce que dafa taw bu Papa Diop jiite woon bu Papa Diop jiite woon mhm. tey jii li ma doon xaar ci moom ñi ngi wax wax ay élection aux collectivités euh, territoriales xaw ma mhm. li ma doon xaar tey mooy mu supprimer benn institution si ñaar yi nga xamante ni ñëpp jàpp nañu ay institution yu inutile la et budgétivore bu mel ni bu CSE bi nga xamante ni Idriss Seck nelaw rek la fa nekkee moom moo ko jiite wala bu mel ni bi nga xamante ni mais mais mais mais mais c'est la vérité mm-hmm. c'est la vérité dañu ko jël yokkal ko Aminata Mbengue Ndiaye ah, jiite te ñoom ñaar ñëpp malheureusement dem nañ ba mënatuñu gagner seen base mais loolu nag waroon na tey jii tax mais mais joxuñu leen institution pour ñu gagner mais mais mais évidemment looloo tax ñun xam nañ ko xam nga ko sénégalais yi koy seetaan aussi xam nañ ko mais gis nga Moustapha man je pense que ni euh, dañu dundul inondation te maa ngi koy wax sànq ci début bi mhm. ma ni bu demee ba zone yi nga xamante ni dañ leen jàpp woon sax ay quartiers yoo xamante non inondable la mhm. parce que bu ñu doon wax bu njëkk ba inondation dañ doon wax ay waxu euh, ay Pikine ay Kër Massar ak ak leen mais léegi Almadies mhm. ni la euh, Ngor ñu boobu ngay wax cité Macky yu fay yëpp lan moo tax bu ñu leen wuyee cité Macky yu fay parce que jël nañu ay terrain arrangé ko nit jox ko ko mm-hmm. kooku mu ñëw tabax te defu canalisation état bi seetaan ko ñu tabaxee nu mu leen neexee bu ñu ñëwee tey jii inondation bi nga xamante ne moom moo am fii ci fii ci Yoff lan moo ko créé. Mhm. mais ñu fa dëkk nee nañ la dafa am benn mur boo xamante ni dañ ko fa tabax. waaw moom moo tere ndox bi di continuer di jàll euh, euh, traversé li nga xamante ne mooy aéroport bi jàll ci canalisation. Mhm. mais ñoom bañ koy tabax. mur boobu mais euh, Pape dugguma la gis nga taw bu njëkk ba mu tawoon pont échangeur xaw ma nu tudd sax bi ñu def si. Philippe Senghor autopont bi Philippe Senghor xale yi dañu mujj obligé di tànq ndox mi pour yóbbu ko de l'autre côté. mais ba tey am benn mur boo xam ne ndox mi mënu ko romb te bu ko rombul Philippe Senghor mooy mooy inondé. Philippe dafa inondé tey li ngay wax noonu. amoon na bee paase yaa ngay fay kay. merci amoon na bee paase amaat na tey jii te amul benn solution loolu ay woy dañuy indi plan ORSEC te bu ñu indiwatee plan ORSEC Pape Sané. mu mhm. de pompe chaque année ñu jënd ko. Mhm. te mu de du liy varié de. du luy périmé. weñ la loo xamante ni dañ koy réparé. moo oto yee yam moo oto na daw benn dix ans moto pompe bu baax mais moto pompe yooyu malheureusement bu ñu paree seen tool yi nañ koy yóbbu di ko béyee. moto pompe lu ñu moom nañu béyee moom nañu arrosé seen tool ay hectares nañu yor. ah day ndox mi di dëgg. ay hectares nañu yor du ñu ko arrosé ay robinet. malheureusement seen plan ORSEC yi ak inondation bi du mës a gaaw a jeex Sénégal parce que dafa am ñoo xamante ni. ci inondation yi ni ñuy dund. d' accord euh, Mame Birame mm. euh, ce qui li jaaxal ñu bari ci affaire boobu mooy euh, Aliou Souaré fàttali ko sax Euh, Pape Sané waxaat na ko moo di ne depuis de euh, au moins une bonne décennie ñu ngi ne ci inondation tey suba ëllëg ngoon parlementaires yi dem def fa une mission d'information wax ne ñoom jaaxal na leen sous-traitance bu bari bi jaaxal na leen ay ouvrage yoo xam ne qualité ba ci waroon am amu ci mais li li ma mënul comprendre mooy pourquoi jusqu'ici on ne situe pas les responsabilités parce que dans d'autres pays quand su lii xeween xew xewoon fa ñuy wax naan am na travaux yu baaxul ak yooyu ñu def moom euh, rëbës la ñuy fanaan waaw Moustapha man dama jàpp ne euh, précisément euh, assemblée nationale moom moo bëgguloon euh, xam véritablement li xew. Mhm. ci plan décennal boobu. parce que suñu ko bëggoon. Mhm. dama jàpp ne du ñu teg en place une mission d'information. Mhm. dañuy mettre en place une commission d'enquête. parce que commission d'enquête moo doon permettre. ñu xam réellement ce qui s'est passé. mais dans tous les cas li nga xamante ne nii euh, constant la te du deñ mhm. mooy que 2012. Euh, mhm. bi la président Macky Sall doon doog a arrivé au pouvoir tombe na ci problème bu ñuy wax inondation mhm. moom mu jël engagement ne inondation yi nii dix ans dina ko xeex teg un plan décennal pour loolu yëkkati sept Euh, ñu prévoir budget de sept cent soixante six milliards mhm. pour régler loolu léegi dix ans après mhm. lenn la ñuy laaj ndax inondation yi ñu ngi fi ba léegi wala nekkuñu ñu ngi fi ba léegi léegi bu nekkee inondation yi ñu ngi fi ba léegi mhm. ñaar moo mun am ñu ne sept cent soixante six milliards yi xooj nañ ko ci ndox mi hmm? muy seen cuune wala ñu ne sept cent soixante six milliards yi séddoo nañ ko muy seen njublam ñaar yooyu rek mën a am ñaar yooyu a am xooj nañ xaalis bi si ndox mi muy seen cuune. wala séddoo nañ xaalis bi muy seen njublang. Mhm. dans tous les cas li nga xamante ni mooy constat. Mhm. bi euh, bi nga xam ne sénégalais bëpp mun na koo def. Mhm. mooy ko inondation yi ñu ngi au Sénégal ba léegi. te bu ñu toogee ñuy wax quantité de pluie. pour man loolu prétexte la. 124 millimètres. waaw cité nañ ay exemple léegi. dëkk yoo xamante ni 9 mois. lay taw. ndox mi day bëri mais quarante 45 minutes defal nañ ko euh, nu mu turee. yoon yoon boo xamante ne nii day dem géej. te bu nekkoon Moustapha. Mhm. xam nga Pape Matar mu ngi wax léegi ne. Pape Sané waaw ah, mu ngi wax léegi ne euh, fi soxna si faatoo. ak géej gi matul sax 100 mètres. Mhm. tey bu doon dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni amul benn ouverture si géej gi. dëkk bu mel ne Mali par exemple. Mhm. léegi ndox mi nga xamante ni wàcc na fii nan la ñuy def ak moom. parce que bu Pape Sané di wax loolu c'est parce que xam na ne. Mhm. ba ñuy def travaux yi foofu bu ñu on sorti ndox mi. Mhm. ndox mi du càng foofu bay. Euh, ay kër yu bëree bëree bëri. Mhm. tey Kër Massar ak dëmb am na famille yu bëri yoo xamante ni dañu déplacé wu ay centaine de pour am ndox mu ñu naan. c'est vrai. yaa ngi imaginer paradoxe boobu am na ñoo xamante ni Kër Massar. Euh, démb ak tey. ñu ngi déplacé wu des centaines de mètres. Mhm. pour am ndox mu ñu naan. si lañ dëkk. donc le liquide précieux li nga xamante ne nii bu nekkee ne da yow da ngay teg ab dëkk ci nga war a commencer. Mhm. ñu ne aujourd'hui en deux mille vingt deux Sénégal ci capital ba. Mhm. am na ñoo xamante nii pour ñu naanee pour ñu naan ndox. dañuy dem di root ci toon teel. am na dañuy fanaan ci seen robinet. dañuy fanaan ci seen robinet yow laal yow yaakaar na ne un pays boo xamante nii ñi koy euh, gouverner. Hmm. respecté nañu population bi dina doxee noonu. Éric Ndour. Euh, ci Kër Massar boobu nga baal ma. xam nga daaw inondation si la ko def woon département xanaa bi yoon région la koy def. <laughs>